نار فوق نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقام الأسماء ليس تبقي آلاما لا إله إلا الله jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokk yi ci déglu bi jërë ngeen jëf itam ci ànd beeg seen rajo Sud FM 98.5 kaddu gi bàyyi ko fii ci ndakaaru ñu jaajëfal leen yéen ñëpp tabaarakallah macha allah euh, fas yéene ñëw ak yéen nag aslëf rek ci waxtaan wi xam ngeen ni tey bu fekkoon imaam a ngi fi dama naan ko imaam mu ni ma imaal yi fa tabaarakallaahu ndeysaan noonu la noonu lañuy ñuy maak moom muy mag bu baax te yiw comme nekku fi nag ñu jéem a tënk rek ay kàddu euh, tey de mbokk yi li ñu bëggoon a waxtaane mooy tey àdduna bii ñu nekk muy planète bi ñu tuddee terre yàlla indi nu fi nu nekk ay représentant sunu nekkin laa bëggoon waxtaane ak yàlla mi nu fi indi lu mu nu fi jariñ ak lu mu nu fi tënke bu nu paree dooru ubbi téléphone bi incha allah xam ngeen ni doomu aadama mooy représentant wu yàlla ci kaw suuf ambassadeur nag bu ko am réew désigné yóbbu ko ci am réew mu nekkal ka fa yaakaar na ne xaw ma kan ma war a jaaxle waaye kooku jaaxleem war naa jeex ndax kenn du la nommé ambassadeur nga nekk ci réew dem foofa xiif di la rey mbaa tumbaranke di la rey ndax yawar yëpp daañ la ko jox mu mel na yàlla it bi mu nuy indi fii nu nekk représentant fii ci kaw suuf it lépp lu ko waroon suñu diggante ak moom tam def na ko ba pare tënku nag ci lépp luy tax ñu nekk ci jàmm tënku itam ji jox ñu référence may nu ay ay ay yoo xamante ne ci la ñu mën a tënk suñu dund tey itam wax ñu ñun ñëpp tam ni fii point de départ la mais lu ngeen fi yàgg-yàgg yi da ne di ñëw dañul di ñu yónni ay ndaw ndax loolu xel suñu ci xel lañu ko joxe ndax yàlla mboolem ku mbind ku nekk rek bëggul ngaa doon doomu aadama ba mu des doomu aadama ndax dafa dafa jox doomu aadama lu mu jox lu wenn mbindeef moo moo di am xel jur gi lu ñuy baax baax baax ak lu muy rafet rafet rafet lu ñuy bari bari bari doole yàlla limité na seen xel pour doomu aadama mën leen a jariñoo mboolem créature yi nga xam te ne nekk nañ ci kaw suuf itam yépp it lu ci nekk suñu borom subhaanahu wa taala dafa dafa dafa la nekk pour nga nekk jàmmi doomu aadama wala nga nekk luy facilitel jàmmi doomu aadama ak ak dundam yii dañ koy war yii dañ ci teg suñuy bagage yii dañ leen di jariñoo yii dañ leen di wéttalikoo te ñoom it yàlla toggu leen dara loolu rek ñu nekk suñu disposition yàlla mi nga xamante ne moo nu indi fii itam jox nañu lu nu fi mën a nekkee muy lépp loo xamante ni lu nit doom lu doom aadama di soxla bu dee ndox nga xamante ni dunduk doom aadama daa laaj ñum ndox réew moo dem yàlla jox na leen ca suuf sa xàbb goo xamante ni ci ndox mën nañ caa naan mën nañ caa fóot mën nañ caa sangu seen jur mën nañ ca naan mën nañ caa mën nañ caa def luñ ci bëgg a def jox na leen ca ca ci mbellit loo xamante nii mën nañ ci jëfandikoo ci yeneen yoo xamante ne seeni aajo yu bopp la ñuy yelloo géej it ñoddil la leen géej jox leen géej tàggat ko mu ne ci seen wet tefes gi nekk fu nga xamante ni mën ngaa waaxu ndànk ak sa tànk dem ba ca tefes gi ñu yàlla may xarala muy libu yeeg ñeneen ñu mel ni ñoom am capacité mën cee dugg ci biir bay mbaal yi jën di indi lépp ay créature la waaye lépp dafa nekk ci disposition doomu aadama yàlla ni ko nag xalaqtuka li ajli wax xalaqtu aj asyaa li ajlik dama la bind ngir man bul doon jaamu kenn bul daw ci kaw kenn bul tudd kenn di ma tudd jëmeel say lépp ci man gëm ma te wóolu ma gëm ma te wóolu ma te dinaa la ko wan ci côté yu nekk gunóor yi fi nekk yàllaa yor seen wërsëg gunóor bu nekk la muy lekk la mu war a añe waxtu wa weer wa at ma bis ba lépp budget la boo xamante ni moom gunóor bi fu mën a nekk loolu dana ko fa fekk melendaan wi noonu xorondom bi noonu même ginaar gi nga yor si biir kër sax yàlla yor dundam mbaam mi noonu nag yi noonu lépp lépp luy yor bakkan di noyyi la ngay aajowoo ci sag dund yàlla moo la koy jox fa muy jógee ak noo ciy jote xam sa yoon nekku ci ya allah kulli alin bu waxtu wa jotee moom daa ci jot waaw ku fàttewul aw nag fàttewoo jur gi fàtte woo dara noo mën a fàtte nit mi nga xamante nii mooy sa représent représentant ci kaw suuf kon gëm naa ne yàlla dunul fàtte mu waxaat ko ci beneen misaal wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamun shay'an yàlla nee na maa leen bind jaara leen seen biir way jur wi jigéen ngeen nekk fa dans en endroit bien sécurisé comme ni ko imam di waxee foofee nga nekk sa biir wajuru jigéen sa lekk sa naan sa oxygène la lay doy ci sa dund ci jamono boobu nga fa tollu lépp yàlla nee na teguma ci loxo kenn maa ko sàmmal sama bopp di la ko jox ba jamono bi nga war a ñëw ci kaw suuf kere ba nga ñëw si kaw suuf bi heure ba bis ba jamono ja ña ko war a fekkee atmosphère ba lépp yàlla nee na laa yastaqdimu laa yastaaxiru nga ñëw ci kaw suuf mënoo wax taab sax boo ko amee mu metti mënoo ko waxe lu dul jooy xiif boo ko def boo ko defee mënoo wax lu dul jooy ci jooy googu ci ngay communiquer ak sa wayjuru jigéen di ko communiquer ak nit ñi yàlla fexe ba nit ñi di xam li nga li nga bëgg ñu la koy defal yàlla tàggat personnel bu ànd ak yow kenn xamu nu mu toll ndax àdduna bi yépp ci sa disposition la ñu nekk te manoo dara tekkee goo dara xam nga nun yàlla fàttewul nga dema dema dem ba mën a jàng dema dema dem ba commencé mën a doxal sa ñaari tànk dem ba mën a football yi dem ba mën a nekku mbër dema dema dem ba am xel boo xamante nii am nga ko muy man nga man nga mën a defar ordinateur nga mën a defar ay portable mën a defar ay arme nucléaire mën a defar ay virus mën a doone nga mën koo defar yàlla mi la jox xel moom moo bàkku ni cam fa tabaarakallah sunu xaaliqin dëgg dëgg may ngand waaw may ngand nit nii de kaay wax lay mbiram bismillahi rahmaani rahim hal ata alal insaani xiinun min ad-dahri lam yakun shay'an maskura yow Muhammad waxoon naa la mbiri doomu aadama ah kañ waxoon nga ma ko waxaat ma ko mu ni xiinun min ad-dahri toll woon na ay jamono lam yakun shay'an maskura du dara du dara toq ma nii loon wax fu mu la taq nga raasu million ngi doomu aadama ci benn xottu gerte fukki million wala milliard doomu aadama ñëpp nga defeen ci benn kaasu at kaasu ataaya ay multi milliard doomu aadama xaj ci benn kaasu kaasu kaasu ataaya ma xëy di leen des di leen disper di leen di génnee ñaar par ñaar ñett par ñett ba nit ñooñu tey bu ñu téyee kaasu kaasu kaasu ataaya boobu soo ko ngëbee boo ko sànnee ci miir bi mu toj doo woon dara yàlla ne na ma jël loola jaarale ko fa ma war a jaarale mu xëy kookee ma fett ay bët monte ko ci ba lu ma ne jàkk boo yeewoo rek ni ngay jëkkati ne tay say bët mu ne xefeet xool xam ni kële Moussa la sama dooma yàlla ne na ma fott ci ay nopp ba lu nit wax nga xam ko ma jëmbët central dina moo nga xamante ne lu bët bi di gis di ko ci centré ci xel mi xel mi di ko centré ci yuur gi ñu nga di ko mën a xam du mën a doon yàlla nee sa fastajaanaahu samian basiran yemuma fa lépp mën la koy defal man doomu aadama ma jox la làmmiñ ngay wax sa soxla jox la bët ngay xool sa soxla jox lay nopp ngay déglu sa soxla jox la bakkan nga ciy noyyi oxygène li ngay génnee mooy lu dee li ngay xëcc mooy li nga xamante ni moo lay ravitailler muy oxygène boo xamante ne mën la ko ñàkk fan lay jóge kañ lay jeex xam lépp yàlla jox la ko yal ne ma jox la biir boo xiifee lekkaat réconforté waat nekkaat nit fi ndox mi dem fi lekk yi dem lu ci nekk nag saa woo bëggee mu génn nga génne ko tranquillement ci sutura te kenn du ko fekkee yow dong ak yàlla yàlla nee na ma defal la naw nelaw ngay nelaw ma jaxal naa na namakum subaatan boo sonnee nga nelaw loo sonn sonn sonn boo nelawee nelaw coono bi jeex defal la bëccëg defal la guddi defal la lépp lépp loo xam ne soxla nga yow doomu aadama defal la ko lépp ma defal la ko waaw yàlla ni lii lépp man la ma defal leen ci suuf si lépp lu ngeen di soxlawoo ci dund suuf si day dee baw tàng jër noor bi picc mu ci naaw sax ba mu tilee daanu ma xëy xëy sotti cim ndox mu tooy xëpp ngeen ji juróom-ñaari feppi dugub dugub yooyu génne juróom-ñaari téeméeri pepp ñebe ji ñor gajanga gi ñor puloox bi ñor gerte gi ñor lépp ñor garab yi sëq si dem yi meññ mango ji ñor lépp lu doomu aadama di soxla clémentine orange xaal lépp lu doomu aadama di soxla boo ko defee ci kaw suuf yàlla nee na ma sàmmal ko dellowaat la ko sàmm la ko delluwaat la ko waaye ba léegi doom aadama mënul fexe ba am googu ngëm doom aadama ba léegi xëy na am na ci ñoo xamante ni gëm nañu waaye ba léegi wóolooguñu yàlla moomu kañ kañ kon kañ lañuy ñuy wóolu yàlla mbokk yi alquran bàyyiwul dara waa farat naa fil kitaab min shay yàlla ne bàyyiwuma dara fiihi nabaukum wa nabau man qablakum wa nabau man baadakum ila yawm alqiyamati xabaar yi ñi leen fi ñi ngeen fi fekkul te ñu jiitu woon leen fi seen xabaar ngi ci biir téere bi xabaaru ñi ngeen fi fekkanteel te ngeen xamante ak ñi ngeen fekkanteel xamantewu leen ak ñoom ñoo ñu seen xabaar ngi fi xabaar yu ñuy ñëw te du ngeen leen fi fekk itam seen xabaar ngi fi bàyyiwuma dara lépp ngi ci biir waaye ba léegi mbokk yi doomu aadama musul deñ di jóg ti jaaxle fu ñu ko fekkee mi ngi affiché jaaxle fu ñu la fekk yaa ngi affiché stress yaa ngi affiché ak ñàkk yaa ngi affiché ab xiif yaa ngi affiché fit gu na nag sa kanam sa xel du dal ci dara fu ñu fekk yaa ngi xët-xëti fu ñu la fekk yaa ngi mel ni yow yaa fi indi sa bopp fu la fekk nga defe ne yow mel ni yaay yaa yor sa wërsëg wala yaa yor sa bopp wala yaay demal sa bopp wala nangam nangam am buur bu mel ne bii buur am yonent bu mel ni bii yonent am téere bu mel ni bii téere am mag ñu baax ñu mel ni ñi nga am ci wàllu yàlla ci wàllu diine ci lu mu mën a doon mu doy la sëkk waaye ba léegi rek nit ñaa ngi affiché jaaxle nit ñaa ngi tumuranke nit ñaa ngi xët xëti problème yu yu dul jeex ci kaw problème mel na ñun amatuñu borom mel na ñun ya borom bi nu am daf noo bàyyi mel na ñun daal dafa mel ne danoo réer amuñu repère dootuñu dellu ci kàddu yàlla gi dootuñu jàng alquran dootuñu jàngalu alquran dootuñu déglu alquran lu mu wax dootuñu déglu dara maanaam booy déglu rajo yi wala ngay déglu nit ñi walla ngay di révi yi wala da ngay defee nit ñi ñoom daal ay bàyyi yu fi yàlla indi rek yu amul fu ñu jëm amuñu repère jëmuñu fenn te mbokk yi noonu dañu xam ni nag àdduna kenn dafi dul sax ana sama baay man dem na bu yàgg ana baayam fekkuma ko fi yow mi may déglu ña ëpp ci yéen ñi may déglu ñu ci bari seen baay dem na ku ci sa baay demootum demoo demagul tam na la wóor ni mu ngi ci yoonu dem ndax jamono boo xoolee taxaw ci seetu bi weex tàll ak bi jaaw gis sa sët waxuma sax sa doom ji nga jur waaye sa doom doomam bu solee sa mbubb mu jot la na la wóor ne bay ma tàmbalee waaj kon fii point de départ la rek kenn saxu fi kon lu waral coow li lu waral jooy yi lu waral weer weer ji tey ñun ñëpp gëm nañ ni yàlla nee na képp ku mën a waat ne di nga dund ren ba déwén di nga lekk di nga lekk ba ren ba déwén kon lu waral xuloo bi lan moo waral coow li lan mooy sunu problème ana sunu borom bi nu moom ñun ana yàlla mi nga xamante ne moo nu ana yàlla mi nga xamante ne moonu nu lan moo tax tey ñun mën noo gëm yàlla ana picc mi nga xam ne moom nga jàkkaar lool nii muy naaw picc mënul bey picc mënul napp picc mënul sàmm mënul am dara waaye lu naaj wi tàng-tàng lu cooroon bi tàng-tàng-tàng lu lekk ñàkk-ñàkk-ñàkk picc mi jox yàlla boppam sa wu xëyee lekk ba suur bu ngoonee mu añ ba doyal bu guddee mu reer door a tëdd ana xorondom yi ana jinax yi ana muus mi nga xamante ni yàlla ko natt mu dëkk ak nit te nit bëgg ko sax a gis foo ko foo foo am na ci ñu bari ci nit ñi fu muus ne ñii wane sëpp daqal taxal daqal di dàq rek di toroxal tey tey tey ci sa biir depanse bi la yaakaar yax yi jën yoo yoo lekk ba desal ko yàlla ne ko jëlal yee sa wërsëg jëlal am na ñoo xam ne sax iñaan nañ la koo jox dañ koy tuuri ca mbalit yi fa ko muus may fekk di ko di ko lekk mu neex lool ci moom kalbum kooku ñu tuddee kalbu noonu la mel waaw ana jinax ana ndeg ment yi ne ci àll bi lu mu noor noor noor noor yàlla jox leen lu ñu lekk weñ wi taq sa ginnaaw sax di matt di lekk ci saw ñaq loolu mooy wërsëgam ci yow yàlla moomu anamu kañ la la fi fàtte wala dafa nelaw laa taxusuhu sinatun wala yàlla du nelaw yàlla du gëmeentu lépp moo ko ndar kepp wasia kursi samawati wal ard teyit wala yaxuduhu wa huwa al aliyul azim ci waaw yàlla moomu nag ñun fan lañu jëm ak moom ba fu ñu toll rek nit ñaa ngi affiché ak jaaxle fu ñu toll rek nit ñaa ngi jaaxle loolu nag dafay wane doaful imaan maanaam ngëm yàlla gu yolom ngëm yàlla gu doyadi nit koo xamante ni daanaka gëmoo dara tey xoolal tey la ceeb yi gën a neex xoolal nit ñi ci wàllu xam-xam li ñuy génnee façon lekk yu neex yi xew léegi xoolal léegi xeeti naan yu neex yi am léegi xeeti ndox yi am léegi hmm? xeeti lekk yi am léegi xool léegi la nga daan dox ay kilom ay at wala nga di ko dox ay nangami nangam léegi nga di ko dox ci ay heure bu jëkk ku mel ne ñoom Cheikh Umar ñu Alaaji Malik mag ñooñ buñ daan dem màkk ñu tuddee ko dox dañ daan dugg saxaar saxaar mooy gaal boo duggee gaal fii wàcc Marseille wàcc Marseille wàcc Alexandre te mooy Égypte euh, euh, lijjante la des door a dox ñaata at alaaji Malik parce que ma def na ñetti at ci ci ci Makka yow nga toog ba ñu ne Arafat ginnaawaat suba la wala Arafat semaine bii nga départ fii ci aéroport mu jóg huit de temps mu ni la cëpp wàccee la màkk yooyu lu ñu gën di dem yàlla di ñu gën a wan boppam. xoolal nouvelle technologie fii ma toog di wax yow nii léegi léegi maa ngi jàkkaarloog Bachir Diop fële ca Jidda maa ngi jàkkaarloo Pape Mor Diaw ci Japon ñoom tey ñu ngi ci bëccëg fi ñu jamono ñu toll nii naaj waa nga tàng jër jënd ba génn na boo xoolee waa Amérique am na ci ñoo ñoom ñoom day kamar boo demee ñu ngay door reer mbaa boog ñu ngay doora a julli timis lépp yàlla dañ ci woon bopp wa fi anfusikum afala tubsirun lépp suñu borom indi ko sunu sunu suñu côté nekk suñu wet nekk latif nekk xabiir nekk ku ñu yërëm nekk du ñeewante waaye saa wu ñu xëyee di gën di jaaxle saa wu ñu xëyee di gën di jaxasoo saa wu ñu xëyee di gën di am ay problème loolu yëpp nag doo fil imaan dong la doo fil imaan rekk la mais mbokk yi li waral jaaxle gi la ca ëpp mooy xaw fu alal xayaat maanaam ragal dund ragal dund rek dund stress nu may def ba dund nu may def ba lekk nangam ni may defee nangam nangam man fan laa jëm nan laa jëmee sama njaboot gi fu ma jëm xër xër xër sa conscience nelawatul sa dara nelawatul lépp jàpp nga ne ay wax nga koy mottalikoo ñenn ñi ñëpp jàpp nañu li xuloo lañ koy jà lañ koy lañ koy mottalikoo wax yoo xamante ne doo ko teg fenn jàpp ne rek dund àdduna daal moom nga war a tabax tey dund àdduna mi loo fi tabax lu mu jekk-jekk-jekk-jekk balaa yàgg nga génn ka ñu génnee la ko te génnee la ko sax moo gën a wóor te yàlla garanti woon na ko Hmm? yàlla garanti woon dund gi léegi nag nit toujours lii lii gën a réyal euh, stress am mooy dund rek mbirum dund la ñuy wax waaw mbirum dund rek coow yi xuloo yi xëccoo yi njiit yi ñoom itam nekk ci kanamu nit ñi kenn ku ci nekk sa dund gi la ca nekk mooy jàpp nga ni ah moom daal dama war a tibb ba doyal dama war a lekke nii dama war a defee nangam nangam ñi ci des tam ñoom itam di sànni ay xeer wàccal yaa war danga wàcc wàccal nangam nangam nangam xëccoo biccoo mbaaloo te nag lu fi waaye bari la bari la yàgg naa ko wax fii nii bis bu ne nga romb loo moomul bis bu ne nga romb loo moomul xoolal rek kër yi li muy rafet rafet rafet rafet loo defar defar defar sa kër ba mu jekk soo gees soo gis geneen kër gu la tiim fuuf yaa ngi am R plus am na R plus soo xoolee R plus jëm kaw am na immeuble dix-septième étage dix-neuf vingtième étage ca kaw ascenseur la ca yóbbu kon ana ana sa ana sa R plus 2 bi kon loo bari la bari la gis loo moomul fi mu ne bi nga yor lu mu baax baax ak lu mu gaaw gaaw gaaw jamono boo ko tegee ci ci autoroute bii boo dawee tuuti booy tegg si tànk oto la fii fii romb la bu la gën a bu la gaaw bu la gën a gaaw wax ni moomoo ko te xamoo sax borom. kon lu lu fi jar lenn li lu waral stress bi lu waral xuloo bi lu tax kenn sa xel dalatul lu tax kenn ku nekk da yaa ngi génn di wax kenn ku ne yaa ngi menacé kenn ku ne yaa ngi dóor ci taabal ji kenn ku ne yaa ngi fëgg kenn ku ne ana yàlla ana doyloo gi ñu war a doy yàlla lu tax ñu am dooful imaan est-ce que ñun am nañu beneen buur bu yàlla est-ce que ñun am nañu kenn ku nu mënal dara ku dul yàlla est-ce que am nañu baay bu am njël lu doy sëkk boo xam ne du yàlla. nan ko wa nan ko wax est ce que est ce que ñun mérituñu méritu nañu nekk jaamu yàlla ni nu yàlla tagge ak ni nu yàlla def ci biir mbindeefam yi ci biir créature yi ni ñu ci def est ce que ñun mérité nañu ko est ce que mérité nañu doon loolu ci njàmbat ci xët-xët ci xuloo ci jéema xam lu ñëwagul jéem a àtte lu ñëwagul bis bu nekk sunu maa xam yi maa xam yi ñi ma ci jublu mooy intellectuels yi ak experts yi di wax yoo xamante ni teguñu ko fenn di calcul calcul yoo xamante ni teguñu ko fenn ci ay xel ak i xalaat lañ koy teg te yàlla waxul kenn dara bi ñu commencé jéem a xam kumpa nag ak di jéem a xam ci wàllu njàng baaxal njàng ak valoriser njàngum xam lu ñëwagum ci ñëw yow yaay sociologue yow yaay gynécologue yow yaay nangam loog na yooyu yëpp ñu jagleel ko ay nit nga xam te ne mën nañu jékki-jékki ci xalaat rek ni nangam mën naa am ñu bëgg a gëm nañu loolu mu wax mën na nekk ana yàlla yàlla am njuuy la sociologue yeeg ñi xam société ñëpp kan moom la ci leeroon ne tey deux mille vingt bi corona dinañu dinañu kor ñun ñëpp ku ko ci xamoon kan moo ko ci xamoon ana kan moo xamoon ne rek lii dinañu gàllankoor lu tax waxuñu ko ndegam xamoon nañ ko muy ci côté sëriñ yëg ci côté ñëpp nag mboolem ko fi doon woote baatin wala nga fi doon woote cir wala nga woote maa xam wala maa maa maa jubóog sama borom waa maa dégg sama borom lu tax waxuñu woon ni corona dina fi am amul ku ko ci xamoon dafa am lu yàlla téel boppam yasaluunaka ani ruux qulir ruux min amri ñu ngi lay mbir laaj mbiru ruux neel ruux secret de taala mbirum sama borom la jeex na wa yaalamul xaysa maa ngi ko doon wax ci këbër ki dem ajjuma jële passé yàlla na maa xam nawet maa xam taw la la nekk ci ginnaaw taw lu taw ëmb lu muy ñorol maa ko xam laa tadri nafsun bi ay ardin tamut nit xamul fooy dee ak fu suul ëllëg sax yi am cër ci sa yaram yi war laa lekk ëllëg xamoo fan la waaye yàlla xam na ko wa taala maa fi larxam li jigéen ëmb Euh, experts yi nañ ko xam mën nañ xam ne lii jigéen la mën nañ xam ne lii góor la waaye góor gii lu muy doone ëllëg góor gii lu muy doon ëllëg amul ku ko mën a xam ana ñu doon wax tey bala nawet daan jot ñi sampi xeej ñii yuuxu ku ne naan nawet bi dina mel nii nawet dina mel naa nawet dégg naa sa façon ñu naan nawet dina bari balaa dana bari balaa ku leen ko wax ku leen ko wax ñun fan lañu ñu toll ci gëm yàlla fan la ñu toll ci liimaan est-ce que ñun Seydina Muhammad am alayhi wasallam yàlla daf koy yónni ci ñun ñun ñu ñëw fii tey doon ay julit juddut suñuy bàyyi di julit suñuy maam di julit alquran nekk fi ni huit Seydina Muhammad am alayhi wasallam nekk fi chaque année rek ñuy dugg ci bokkale yàlla goo xamante ne teguñu ko fenn di valoriser loo xamante ne teguwul fenn ci mbir àdduna képp la tegu di seet ñoo xamante ne insignifiant ñu leen di teg ci rajo yi di leen teg ci télé ñu leen di déglu ñu naan nawet dina am li nawet dina am lu tax daaw ñëwuñu dana am corona lu tax tey daf yi dafa leer nañ yàlla dafa lay ñun ba pare fii ku fi jaay maa xam ku nekk nañ la laaj ndax lii xamoon nga ko xamoon nga corona bi lu tax ba nga xamee waxoo ko kon corona loolu la problème yooyu rek nañ leen bàyyi bokkaale yàlla nañ leen bàyyi leen bàyyi shirk nanu bàyyi yàlla moom moom nit man sax xam naa lenn ci sa loolu sama xalaat bopp rek lay wax nii ci loolu man xam naa sax nga dib jaam tooñ yàlla mooy yàlla nga naan sàngara mbaa nga tux yàmba mbaa nga njaalo ba bu boobaa yow loolu sax matta di la jaam jaamu yàlla bu ju bu tooñ yàllaa ma yaa xam ak sa borom boo tuubee mën na la jéggal waxuma nañ daa baax mais dama la xam ne la loola lu muy bon bon tax ci kabaayir yu mag yi la bokk lu muy bon bon bon yàlla nee na ku ko tuub ma jéggal mais yàlla nee na ku ma bokkaale du ma la jéggal dinaa jéggale bàkkaar yi waaye du ma boobu ñun ñu bëgg dëkk ci bokkaale bala nawet a ñëw ñu jéem a xam li xew ci nawet bi xam dugub ji xam gerte gi xam lépp te yàlla ne maa xam wa yaalamul xayt man maa xam lan mooy nawet maa xam luy nawet yooyu yëpp ñu tekk fii di doxee baatin di doxe secret ba ci ñun ñi ci wàllu diine ji sax laa wax nii léegi wax yàlla ju leer nañ ñi wax nit ñi charia bu leer nañ ñi sax tënañu léegi kenn ku ci ni boo ci wax yaa ngi ci xool sa daraja yaa ngi ci xool sa loos yaa ngi ci na dama baataka noosa la kër ñii nga di wane ni da doon dara ci yàlla te bañ a wax téere yàlla bi tout court mu jeex alquran dara nekku ci lu may def leen bàyyi leen ku koy waxal yàlla wax ko yàlla mu jeex tekk waaye doo ci boole leneen leen loo ci boole sa daraja bopp la nanu wax nit ñi yàlla nañu wax nit ñi alquran nañu wax nit ñi dëgg jóg su nañu leen jóg suñu diggante yàlla ak jaamam ñi nañu leen jóg diggante yàlla ak jaamam ñi na leen jóg diggante yàlla ak jaamam ñi loolu wax ju leer naññ la gis nga fi nii bu dëj amee wala néew am dem leen cam te levée bi wala ngeen dem fa ñu koy jullee su ñëpp taxawee ba ñu rek la sàppe yi ba ñëpp taxaw imam la ñuy woo ana directeur ana président ana ana ana ana ana ñi doon maa xam ana ñi doon maa man ana docteur yi si ko doon faj ñëpp ca ginnaaw la ñu taxaw ñëpp ca ginnaaw la taxaw kenn rek lañuy woo muy imaam imaam ay mujj ci yow imaam mi kenn dul déglu imaam mi ñëpp defe ni dof imaam mi ñëpp defe ni dafa xamul la xew waxin la waxin la imaam mi nga xamante ni waxam kenn benn journal du ko reprendre benn journal boo doo gisoo ajjuma imam def benn xutba benn benn journal reprendre ko ndax nit sax duñ dañ ko dul sax jënd ndax dañu jàpp ni imaam yi dañoo déconnecté loolu liggéeyu seytaane la la lay jariñ nga war koo déglu daf la koy ñàkk loo fayda ba doo ko doo ko joo ko jox yenn cër doo ko sax lijjanti da ngay defee ni ñii dañuy léeb rek wala ñii daal oh mu ngi noonu yow jàpp nga yow bokk sa si jaar dem rek teg foofu bu ne allah akbar nga ne allah akbar bu ne asalaamaaleykum nga ñibbisi la imaam di wax sa yoon nekku ci jéemaloo koo xam jéemaloo sax xamanteeg imaam imaam moomu ngay bañ a nuyu imaam moomu ngay bañ a xam imaam moomu ngay bañ a saafonteel keroo bu ñu la tëralee ci buntu jàkk ji moom la nuy woo moom mi doon julli julli juróom yi mooy ñëw taxaw ni ku mu yoreel bor kan moo ko garanti bu dee góor gu mag la doomam taxaw mbaa magam mbaa rakkam mbaa mbokkam foofu nag attention bari na ku naan ku mu yoreel na ñëw ci man dafa du erreur la nan ko xool ndax yaa ngi gàdd loo xamul koo xamante ni dund na juróom-benn fukkat juróom-ñett fukkat nga ne gàdd na ay borom foo jëmee bor yi da nga xam bor yi nu mu toll moo tax nit ki looy seere nanga xam ni ngay seere lu mu doon looy gàdd na nga xam li ngay gàdd lu mu doon nit ñi mu ñu taxaw rek nga daan ni ma maay sama doom la maay ba am na ku ma gàdd naa bor yi d'accord ku mu yoreel te baaloo ko te fàttaliwoo koo ko te ngeen bindoon ko ma ngi ñëw ni waxtaan ci bu dee ma mën a fay ma fay bu lu ma mën a fay ma waxtaan ak mbokk yi ñu bokk ko fay bu fekkee ne li li la yoreel ñun ñëpp kenn mënu ko cee fay ñu jéggalu ko yàlla mbaa yow nga jéggal ñu ñaan la nga jéggal ko loolu dafa am solo imaam moom nag mooy taxaw ci sa kanam bu ne allahu akbar da ciy dégager responsabilité ba mu set wicc ginnaaw bu jàngee faatihaam julli ci bi sallallahu taala wa ñaanal la seedeel la itam seedeel la yàlla kii de sab jaama sa doomi jaam la ndax baayam sa jaama bàyyi baayam sa jaam la yaayam sa jaam la yaay yaayam sa sa jaam la nangu na ko it nag te daan na ko seede daaw na julli daaw na woor na def lu baax ci sunu kanam te yaanu ko gën a xam bu dee dëgg la yow xam nga ko bu dul dëggit xam nga ko yaanu yaanu ko gën a xam ñu lay ñaan yàlla nga ko jéggal bu fekkee daana rafetal yàlla yàlla nga jël rafetaay boobu taara ko ba mu taara nga nangul ko ko te jéggal ko bu dee daana ñaawal ci lu nu xam ak ci lu nu xamul lépp yàlla yàlla nga jéggal te fénatal te la mu ñaawle ana imaam ma nga doon bañ a nuyu moo tax yàlla mën na koo rus ni kon rus naa la yow imaam nangul naa la ko moo tax ñu ne am na kuy tëdd ci kanamu imaam bu la delluwaatoon sa ruux nga dellusiwaatoon loo amoon di ko wanteer jox ko imaam waaye am na ñoo xamante ni ki ñu gën a bañ ki ñu gën a tegub dof mooy ko wax yàlla nee na wala ko wax lislaam teguñu ko fenn noonu nañ ci bàyyi xel nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax dama doon wax rek li war suñu jaaxle nii ñu jaaxle nii ñu tënkoo ni àdduna bi mel gisal léeg nga gis borom alal ju xaru yor lu dul jeex xaru lu ko koy waral stress xalaat yu bon jaxasoo jaaxle ba yaakaar na ne rey boppam rek mooy solution ana liimaan ana gëm yàlla bi ngay judd loo am bi ngay naan cëpp di judd ci kaw suuf loo indaale tubéy sax indaaloo ko mbubb indiwaale ko lenn luñ la luñ la defal lu nekk luñ baaxe sarax la ko làmbaayoo la ko waaye indiwoo ko fi amul kenn ku fi indaale tubay amul ku fi indaale tubay amul ku fi indaale mbubb nit ña fekke woon sa jamono ñoo la abalu muur la ko waaw lan moo war a man jar tax yow ngay xaru kon loolu erreur la loolu erreur la benn ñaareel ba xaw fa ala rizq li waral jaaxle gi mooy ñàkka naagu ci sa wërsëg koom-koom dajale rek di jal loo am xeeb nga ko loo nit am teg nga ci sa bët di dajal rek di di jekk xanaa xam ni bari na ko am lu dul jeex te sa sa conscience tranquille sa conscience tranquille bari na ko séen di ko yërëm fekk mi ngi dund dund gu neex am na benn waykat yaakaar naa ni dina koy dégg ci ñoom ndoy baan ci suba gi <laughs> xam nga ñoom ñoo dañ mën a tooñ ndoy baan ak abaak ak Mouhamed Ndiaye macha allah ñu ngi leen di nuyu passage euh, ni ñu faral di wax ku xeebul sa noos yaa ngi sa noos waaw waaye xam nu ma ko waxee mais wax bu am solo la nit doo xeeb la nga am bari na ku yor carte grise yu bari di transporteur yor oto yu dul jeex yor ci banque bi waaye nga leba leba leba dis gan fonde boo ndékkee wala boo le boo añ sax néegu ko iñaane ko jox sa waa kër ngay mottali ko alal julul jeex wala ngay mottali koo diw transporteur wala diw mooy milliardaire wala diw mooy nangam nangam fekk sa waa kër ñi gàddul nga leen àq di dajale rek di lepp di dajale ba xàmmeetoo li nga moom ak bor yi la topp te mag a ngi lay yóotu màgga ngi lay yóotu màggati nga lay yootu wéradee ngi lay yootu yi nga xam ne mooy rey nit yépp nuyu na ni la saraax jox la loxo te fayoo ci kenn te ñoom fas yéene wuñu dem te yóbbuwuñu la fas yéene dem te yóbbuwuñu la ngay sooxaale yooyu te pendant ce temps yaa ngi daw ci ginnaawu dërëm lu ñuy séddale nga daw ni ca lëjj foo dégg mayam xaalis foo dégg séddalum ceeb foo dégg leen nga ne ca lëjj doo suur doo doyal sa yoon nekku ci dara giiroo maanaam dafa ci am nit ñoo xamante ni dañoo tàmm alali buur tàmm lu ñuy séddale ci koñ ba defe nañ ni lépp lu ñuy séddale ci koñ war ngaa am sa doom war a am sa jabar war a am lépp nga war ko am bu waaf ci lenn li waabale leen téye lépp góor nga defe loolu moo lay taxa moo lay tax a baax àq jooju foo jëm ak moom bu ñu nee lii nañ ko jox néew ji doole yi te mu wóor yow mën ngaa amub dépense lu tax nga bëgg boole sa bopp ci néew ji doole yi lu tax nga bëgg bind sa bopp soo bu ñu bëgg dañuy tere yelwaan dañuy tere yàgg nañ leen wax lii ñun bari na ay sàcc yoo xamante nii du ay yu rafet la ñu yor ba pare di ay mu kallaf waaye lu ñuy séddale ci koñ bi ñoo koy sédd seen seen ñoo koy sédd seen biir kër ñoo koy denc sédd ko seen bopp sédd ko seen nit di ko joxe guddi yow kañ da nga fiy dee ceeb bu ñuy séddale ci koñ wala seet ceeb bu ñu joxe ngir lépp épidémie bi nga ñàkk cee am day tax doo añ bu suba avant ceeb bi loo jàppoon avant ñu joxe ceeb bi foo nekkoon xanaa yow kon da toroxal yàlla da nga toro képp ko dégg muy jàmbat wala muy ngalti ngalti coow yàlla yàlla nee na sant leen ma ma dolli leen la in shakatum la ceeb bi doon am foo foo nekkoon après ceeb bi fooy nekk après après après lu tax ñu doon sant yàlla est-ce que duñ sant yàlla xam nga Cheikh Béthio Thioune yàlla na ko yàlla yërëm daf fi indoon benn slogan bu am solo muy sant cant cant dafa am solo lan sant yàlla quand on n'est pas ce que l'on veut on <laughs> ma jama jamono yi maanaam sama xarit la loolu dañuy waxtaanee quand on n'est pas ce on se contente a xam nga nag loolu muy firi. ku amul li nga bëgg nga téye la fa sës nit dangay suur góor da suur biir du suur xel muy suur conscience am ruux góor nit muy suur waaye ngal ngal ngal coow kooku day mel ni danga nga ñàkkee teggin yàlla danga mel ni yàlla moom nekku fi na leen dellu ci yàlla na leen bàyyi caaxaan na leen bàyyi caaxaan te dellu ci yàlla mag du weq la ci bijaaw ñu dëkk la micro ngay wax wax waxi boole puy da wax yoo xam ne waxi àddina képp la ak wax yoo xamante ni kenn du xam lu mu doon amaana doo ko fekkee amaana sax bala moo ñëw nga dee amaana nangam nangam parce que am na ñu la gën fuuf ñoo xamante ne fekke wuñu ko tey ñu ngi ci biir suuf da nga leen gën kon lu waral tey kuy wax di wax man daal man dama yàgg nit ñi dafa mel ni du ñu yëg yàlla léegi yëg yàlla sulli ay mbóot wax ay yu ñaaw wax joxante saa wonee wasalaam ku nekk war a xalaat nag aw fan lay jëlee xeer wu ma sànni wala fan lay jëlee aw yet wu ma wu ma wu ma dóoree te kay ka waxkat bi jaaw la mais tal ak bi jaaw waroon tey wax ba daaneel ñëpp na ah, wax na dëgg kii moom li wax ci lislaam oh kon de mën naa gëmaat yàlla defaraat sama bopp mais am na loo xamante ni yàlla yàlla ak li mu daj ci ñun te ba pare nag nee na wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha su ngeen doon jéem a te li ma leen defal ci teraanga du ngeen ko man mënu ko li ma leen jox ci teraanga waaye sant leen ma sant leen ma kon wax naa la wax naa la ñaar ne li waral jaaxle gi nit di jaaxle bu foo ko toll ma ngay dar gémmiñ foo ko toll ma ngay yuuxu ñenn ñi mu jar leen xaru ñenn mu jaral leen sax rey nit xoolal agression yi ni ñu bare xoolal agression yi ñu bare xoolal rey nit ñu rey wu ñaaw wi wutin wu ñaaw wi hmm? xoolal deret yi tuur ci àdduna bi xoolal agression yi ci ci koñ yi ku yeew ay xar tabaski gi ñu jëm ku ci yeewi xar sa xel dootul nelaw mbaa boog yaa ngi wut ngànnaay mbaa yaa ngi wuti gardien mbaa yaa ngi fuglu ku la yee guddi ndax jamono boo déggee koy dox ci escalier yi jëm ca xar ya jamono boo ne koo kan la ba moo ne sa bakkan ngi ci xott la xet booy génn ñu lay descendre booy génn ñu lay descendre à cause lan ñaari xar yi nga yeew xar yoo xam xamante ni lu mu cher cher matul paas cinq cent mille ñaari xes sept cent mille de un million nga faat ci bakkan mu di la topp ba yomal xiyaam ci loo xamante ne as gor su doon yaxantu nga nga faat ci bakkanam nit kuy góorgóorlu ba amul bitigam amul bitigam di cay sak sakkanal lu mu dundalee njabootam lu mu fayee luyaasam lu mu fayee dangam dangam lu mu am di bénéfice mu fay ca la dundam tollool la ca mu denc ko du lekk du ci naan ngir sàng ci boppam suturaam ak sutura njabootam nga ne ko wabaat jël lépp bu la nee sàcc yi ngeen ko bal tuy mu ne mu sedd guy mbaa ngeen dugg yor ay ngànnaay olime ko rey leen ñoom ñëpp wëq keese dem si sëf yéen a dem yéen a gore di loolu ku ko mën a def yow te mu wóor la ne yow doo fi dundat mukk juróom fukki at mbaa boog boo fi dundee juróom fukki at ci leen teg sa kanam dootoo tekki dara dootoo man dara aw yet ngay génne ndax gis nga àdduna mi dafa àdduna dafa neexalul kenn <laughs> allahu akbar dafa neexalul kenn àdduna neexalul kenn ku ko jàpp jàppoo dara ku ko jàpp jàppoo dara li la fi tax a gone di wala mu tax la tax ngay rey nit wala mu tax la ngay yàq deru nit wala nga tax ngay éliminer ay nit ngir bëgg fee toog ak bëgg fee mujj ak di waabale balaa yàgg mu soof la balaa yàgg mu soof la wallaahi waaye yow yàgg naa wax fi nii alal joo xamante ni danga koo am muy ay nag wala muy ay oto wala muy ay kër yu bare bare bare bare sa compte banque yëpp ni muut bu ci ne fees ci dël ñu tere la suukar ne la bul ko lekkati ndax danga jabet ñu tere la yàpp ne la moytul AVC ni la moytul yëkk yëngatu yu bari yi gudd gàtt daal li ñu bëggati mooy dee lekk lu weex dee lekk lu weex jongoma li ñu bari bari mënatoo ci dara takkatoo kenn tekkeetoo kenn ana bànneex ana li nga sàccoon ana li la jaroon doon xërte xërte ka coow lu ko jaral doo préparé rek ci geneen dund ga nga xam ne wala laaxiratu xayru laka minal uulaa àdduna ba beneen dund gi ñëw moo dàq doo ko préparé li nga fa yor yépp te lewul nga delloo ko seen borom leen lew te mu nga moom ko nga jaamu ci yàlla ci jaame yàlla yi nga wut ci ngërëmal yàlla dund gu dul jeex gañ jëm moo ko ëpp dool dund gi fii dañ fay jaar rek point de départ la ngoog euh, waxoon naa la lii waral jaaxle gi ñeent la wax naa la ñaar yi ñetteel mooy al xawfu alal xusulil makruux waaw mooy tiit lu ñëwagul tiit lu ñëwagul ñaaw njort am naa sama pouvoir naa ko téye ba lu ñu ko foqar ci ko wax nga ne ci man la jëm maa ko tax a jóg sama noon la li ma yor la iñaane li ma yor nangam nangam nangam ñii itam taxaw na wàcc ñii du ruube waaw di saboote ku ne di yàqal sa moroom ku ne di noonu sa moroom ku ne xaw a nuuru noonu sax lay wax ku xaw a nuuru sa mo xaw a nuuru sa noonu moroom te yàlla xam na ni ragal lu ñëw gu rek te yow li ngay xëccoo ko xartoog di ko rey sa bopp amaana mën naa ñëw doo ko jariñoo amaana mën naa ñëw indaale balaa amaana mën na ñëw indaale musiba amaana mun na mën naa ñëw du sa wërsëg du sa muur bari na koy xëccoo yal naa am doom yal naa am doom yal naa am doom doom dañoo yóbbu la bari na ko yeex a am jëkkër ci ay moroomam dem ba mujj jàpp ni moom dafa ndóol mbaa dafa yées mbaa nga noonu fekk ne déedéet sa ajjuma ñëwagul yàlla dogalagul toogal te du dund xam ne lépp dana ñëw bari na koy nekk ci néegu sëy di sëy amaguloo doom yàlla bëggagu ko ci yow namm gu ko ci yow bu ko yàlla namoon def ko ndax ñi mu ko jox gënuñu la gënoo leen kon delloo lépp ci loxo yàlla xam ni dafa gënul su gënoon rek yàlla def ko bëgg ko dund stress say goro bëgg ko dund stress ku ne bëgg la koy xoolal mel na yaay may sa bopp am na ci sax sa yu ci yàqu am sëy yu ci tas loolu pour lan ragal lu ñëwagul ragal ñàkk ku ci xasa am commencé am benn million ci mbooleem ñi yaxantu nag laa wax nu may def ba am ñaari million mooy kay mooy xalaatam nu may def ba am ñaari million nu may def ba léegi nag million bi dootu sax xalaat asaka dootoo ci xalaat sarax dootu xalaat génne ci dara foofa nga koy def ni ko kupp bàyyi ko fa nag te fekk na am na àq ju ci war a génn xam nga nooy def da ngay jékki-jékki ñàkk million ba benn bu fekkee ab xaalis boo denc wax ne mënoo caa jot ordonnance lay mujj doon comme nangoo ko génnee sa yaram génnee ko moo tax nit ki war na xàmmee tey déglu lislaam nan déglu diini ji buñ ko dégloo rek la ma jëkk a wax ci ni lislaam solution la waaye du problème ngoog kon ñeenteelu jaaxle gi nit ñi di jaaxle mooy xawfu alal xusulil makruux tiit lu ñëwagul tiit ñëwagul toujours yaa ngi xalaat syndicaliste yi hmm, chauffeur yi transporteurs yi apprenti yi ñun ñëpp foofu li ñu war a xam rek mooy am nanu buur boo xam ni kat moom rek nu doy moom rek moo yor lu nu doy xoolal euh, corona bi Covid 19 bi du mois de mars la ñu wax le 2 mars la fi ñëw mars avril mais ñu ngi ci juin amagul sax 4 mois yu ron xiif nanu fi ba lakk fii pënu ba yuuxu fi ba saalit fi ba ñàkk fi suñu crédibilité. <laughs> kon nga ne yàllaay yàlla mi nu yor yoroon sunuy baay yoroon sunu baayaati baay sunu maamaati maam te dara musta na tarde kër goo dem aña nga fa kër yëpp kër goo dem aña nga fa ba kër ga mujj aña nga fa foofu sax sori na xoolal taximaan yi ci yi ci Sénégal yëpp xoolal transporteurs yi urbain bala ma ñëw ci inter urbain ku ci xëy sol plein gasoil mu fees del ginnaaw boo joxee dépense dex sa versement xëyaat nag di daw gaasuwaal bi moom day lakk boo yebee day lakk boo yebul day lakk te du la xaar ci dara tànk yaa ngi machine baa ngi dox moom gaasuwaal bi day lakk te fas nga yéene balaa gaasuwaal bee jeex nga amaat loo sole plein amaat loo versé am loo joxe dépense am loo sànni ci sa poche ñaata ñaata taximaan a fi ne ci Sénégal ñii dañuy xëy ñii di gont am ñoo ñoo yore seen bopp ñaata kalandoo fi nekk ñaata oto njaga njaay ak transport ñaata Dakar dikk ak ñoo fi nekk ñëpp yàlla di leen jox la ñu am coow ji coow jibul ku ci nekk boo wecce boo boo wàccee versé xam ne yàlla rek yàlla yàlla rek yor lu nu doy yàlla dong nga yor lu doy képp ku fi jaakaar da nga yor lu nu doy rek nax nga sa bopp ba pare nax nga nu ñun kenn yor lu nu doy doomu aadama yàlla rek ko doy wala ana ana ana tailleur yi ana maçon yi léegi mbooleem fu fu fu fu feebar bi jaaroon rek yëg nanu fa ni kon yàlla rek fi nekk loolu mooy message bi nga xamante ne moom la ñu moom la jox yàllaa fi nekk xam leen ni yàllaa fi nekk faalam annahu laa ilaha illa ana faabudni xam leen ni amul benn buur bu dul yàlla man kon nag jaamu leen ma jaamu leen ma yàllaa fi nekk leneen new fi lu yaakaar nga ni da sa bopp xam nga bi may daanele mooy alxawf mu ngoog ragal li ma bëgg nan lay def ba ba jot ci lan lay def ba jot ci ñii kërte kërti ba jot ci ñii di kërti kërti bëgg nga wàcc ñi jot ñi yéegal ma wàcc demal ma ñëw yéegal nga wàcc demal ma ñëw coow li ngay dégg yépp ci àddina bi loolu la yàkkamti suba fàtte démb xeeb tey moo waral coow li moo tax coow du fi gaaw a jóg ndax tànk nanguñoo dellu ci alquran nanguñoo dellu ci tiirab yàlla bi nanguñu seet yàlla li mu bëgg ñu nekk ca li mu bañ ñu bàyyi ko du ñu jóg ci coow du ñu jóg ci xëccoo du ñu jóg ci biccoo ak ak mbaaloo heureusement nag Sénégal moom du ñu xeex baa boog xeexagul te yàlla bu nu xeex moom lépp rek yàlla nekk yàlla yam ci wax waaye bu ñu delluwul ci tiirab yàlla bi xam ni am na nu repère yàlla mi nu fi indi am na lu mu nu joxoñ am na lu mu sant am na lu mu nu sunu conscience dootul dal te sunu doxful imaan day gën di fës ñuy gën di ñàkk ngëm dema dema dem ba jël ngànnaay di ko jàkkaarloo indi leen ko dóor maa ngi jël ay yet xoolali li xew rey sa jabar rendi say doom nangam ak nangam yu ñaaw yooyu saa waxee dégg bu ne weng triande gu mat sëkk dóor mart waxante kenn xamul fan la ngir rek am loo def sa poos ak loo dajale ak loo jal ñun fu ñu jëm kon nag la doon tàmbali lay daanee la na leen dellu ci yàlla dellu ci téeram bii bu ñu ko defee rek li ñu bëgg daanu comme bu nu ko deful nag tubaarakallah macha allah yéen yàlla defal jàmm defal ñu dégg te defal ñu topp ngi leen di nuyu yéen ñëpp leen ziar nan teg foofu suñu baaram incha allah eh, dafa mel ni jot na Oustaz Alioune Badara Socé mi ngi nii sama wet su daaneelee dana ñëw incha allah xabaar yi bu ñu paree nag ubbi téléphone bi lii ñu fi doon wax ñu bokk ko waxtaanee ba lu ñu yàlla may ci waxtu rek ñu daaneel incha allah seen mbokk Oustaz Alioune Mbaye woon ci waxtaan wi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. fi ma bayni wa baynak fa amma allati li fa ta'buduni la tushriku bi shay'an wa amma allati lak fa ma amilta min khayrin jazaytuka bihi fa in aghfir fa ana al-ghafuur rahim وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء والمساءلة وعلي الاستجابة والعطاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك Lorsque les autres visent Dakar, nous